jaxaw siin buur siin waaye ku wax buur wax jaraaf ku wax buur wax lingeer ku wax buur wax bisik tey nag muy bisu histoire bu am solo boo xamante nii dinañ taxaw ci wax kan mooy lingeer naka lañ koy fale mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah fii ci jaxaw siin tey dañu fas yéene ànd ak yéen ci fàttaliku cosaan waaye ci xam cosaan lan mooy lingeer kan mooy rôle kan mooy Linguère bi nga xamante ni tey moom moo représenté waa Sine danga ko bëgg xam topp ñu incha allah rabbul alamin fii ci jaxaaw Sine ak ay boroomi xam-xam yu am solo ak ay boroomi xam-xam yoo xamante ni dañoo maîtriser histoire xam histoire Sine doomu aadama pour mu mën a am développement faw mu xam cosaanam fii ci jaxaw Sine ñu dem. <laughs> maa ngi delloo ziar Ahmadou Bamba Seck maa ngi lay nuyu di la ziar di la màggal euh, ñu bàyyi la nga présenté wu nuyoo mbokki Sénégal yaakaar naa nekkul sax ko ñuy présenté waaye nag euh, du ñàkk am ñoo xamante ni xëy na <laughs> euh, dinañ soxlaa xam ki ñu jàkkaarlool mooy kat. wax nga dëgg waaw man Mamadou Faye laa tudd nekk fii ci inspection d'académie bu fatik di enseignant di jàngalekat instituteur waaw waaye nag eh, damay bokk ci ñi nga xamante ni dañuy raconter histoire u Sine muy li nga xam ne moo jëm ci cosaan ak aada séeréer rawatina nag la royauté dans le Sine waaw. Euh, ñi ngi taxaw ci jaxaaw bu ñu wax jaxaaw mooy lan. waaw jaxaw mooy capital bi nga xamante ne nii euh, mooy boo ne royaume ne capital waaw maanaam pencum buur fii nag la buur Sine daan yeewoo moo doonoon capitale am waaw ki doon yilif siin gi yëpp jaxaw gi la daan dëkk waaw fii nag mooy dëkk bi nga xamante nii dëkk siin royaume du siin pexe yi koy doxal yëpp fii lañ koy nase waaw pexe yi koy doxal fii lañ koy nase tey nag muy bis bu am solo boo xamante ni tey yaakaar naa képp ko wax buur di nga wax bisik képp ko wax buur di wax jaraaf waaye nag képp ko wax buur di nga wax lingeer kan mooy Linguère Sine naka lañ koy fale ban rôle lay joué incha allah tey lépp dinañ ko xam fii ci fii nga xamante tey moom mooy jaxaw euh, siin cheikh bi incha allah tey mooy ay tomb bari yoo xamante ni dinañ ko fas yéene ànd ak yow ak euh, reen yi nga xam ne jot nañ fi jaar seen histoire rôle yi nga xam ne doon nañ ko joué incha allah tey ci bis bu am solo muy bisub histoire lan nga yëg tey. waaw tey <laughs> xam nga euh, siin moom dafa doon réew moo xamante nii la fi maam ba tey mi ngi fi loolu fierté la fierté boobu rek laa mooy fierté bokk ci société boo xam ne bokk ci réew moo xamante fàtte wuñu seen dimb le Sine n'a pas oublié son histoire waaw te ba léegi aussi la fi newoon lépp nekkatu fi mais lem lenn lu ci nekk la fa newoon ñu ngi fay jéem a représenté dara ba loolu moo tax moo waral li nga wax nii parce que amoon na nu Linguère yàlla dogal na li mu dogal ci moom màggetoon na nag ku jëloon âge la euh, wàcc na liggéey te jii ñu ngi introniser ki nga xam ne moo war a nekk ci place am na ko maam yi daan defee kon muy ay surprise yu bari yoo xam ne moom moo ñuy xaar kon yi teg foofu seen baaraam su ko defee ñu mën a ànd dugg biir siin ñu xool lañ moo fa nekk. <laughs> mbokk yi comme ni leen ko waxee woon rek tey ñu ngi fii ci euh, siin euh, muy barab yu am solo di dund cosaan ñu war fi mën a jël ay tomb yu baree bari waaye duma ci wet dama ci ànd ak professeur professeur fii ñu nekk fan la. waaw fii mooy jaxaw mais fii mooy kër Buur Sine Ñoxobaay waaw maa Sine Ñoxobaay fii mooy këram. kan mooy Buur Sine Ñoxobaay. waaw kooku de mi ngi nii sawet toog nii sawet <laughs> actuellement tey moom mooy euh, Masinick Euh, toogal fi ay maamam comme ni fi maamam yi daan toogee yilif siin gi yëpp tey jii nag le Sine n'a pas oublié son histoire le Sine n'a pas abandonné son histoire am nañu capacité man koo restauré waat ba tey jii kii fi mu toog ne bu ñu dee woon ci année 1700 1800 tamit moom moo fi toogaat rek waaw moom nag euh, doom la ci ku ñuy wax Ama Diouf Dibor di doomu teeñ kooku di doomu Bour Sine Semu mag bu dee ci wàllu yaayam duma ci sore Euh, moom euh, Linguère faatu Diène mooy way juróom bu jigéen direct waaye nag kenn gënoon na taqalool mooy Linguère bi nga xam ne ba mu wàccee liggéey ba mu wàccee liggéey yàggul waaw mooy Linguère maam Daba Diène waaw kooku nag vraiment xamoon nañu digganteem ak moom mii toog xamoon nañ ko fekk na ko seema fekk na ko fu ne waaw ci sunuy teewaay ak ak ci luñ teewul waaw moom nag moom moom moo toog nii xëy na dina am yoo ko laaj. <laughs> macha allah kon moom moo fi toog toogaayu buur buur ñu ngi lay ziar. ziar naa la Bamba. Euh, muy lu am solo ñu koy gis ngeen koy dundal muy histoire lan moo waral tey leen inspiré ba tax ngeen téye ndono ba tey tey bu ñu xoolee kër yu bari naax saay nan lan moo waral loolu. waaw xam nga nit adam rek la am te bu la sa aaj rëccee lu bari la na rëcc ci àdduna parce que man dama ko gis dama ko gis feneen te ñun comme euh, fexe nañ ba loolu dellu si fi mais dañ koy gën a dundalaat cër yi nga xam ne yëpp euh, ñoo fi nekkoon ñu maam yore ko seeni sët wala seeni doom ñoo ko yore fi mu ne ku ne yaa ngi sa place nga toog terewul nag ngay liggéey sa liggéey bu ñu ci fekkee ñun danañ ci ne ku ñu ti fekkul aussi danañ ci ne parce que xam nañ fi ñu teg suñu tànk ci république lañ ne xam na lan mooy république mais nag république <laughs> dafa am dëkk bu ne dafa am cosaanam te nuñ ci cosaan lañ ne donc tooñu ñu kenn. macha allah muy lu am solo tey ñu nekk ci bis bu am solo bis bi nga xam ne dañ cee war a sàmm Linguère bu ñuy wax Linguère lan mooy Linguère. Linguère daal pour wax la lu gën a gàtt fii ci Sine képp kuñ fi rek lingeer d'abord gelluwaar nga bu jigéen boole si jigéenu buur ngay doon walla yaayam te man mii man exemple mooy exemple bi nga xam ne moom mu ci gën a leer ndax ki nga xam ne dafa gaañu muy Adja Daba Diène bu Mbàkke Selbe Cuuc Adja Daba Diène mook suma yaay Fat Diène ñoo bokkoon ndey ak baay mu nekkoon Linguère ñu ànd mu dem jóge fii ñeenti ñeenti weer après ñu bugg a teg fii beneen Linguère beneen Linguère boobu nag suñu jigéen rek la mën a doon ndax suñu suñu yaay yëpp gaañu nañ donc Linguère gelwaar la gelwaar bu jigéen bu tekkee ne buur nekk na fii yaayam yam mën a doon wala jigéenam loolu daal mooy lingeer xëy na nag feneen lingeer nekk na leneen. macha allah euh, waaye ku wax lingeer wax ay rôle yoo xam ne dina ko jouer tey yan rôle la ñuy jouer sa diggante bi nga xam ne moom moo am ci diggante ak lingeer yan rôle la doon. xam nga euh, nguur siin dañu yàgg ci li ñuy wax genre yaa ngi ci décentralisation buur moom pratiquement moo nekkoon kilifa ñëpp mais gën a jege nag góor ñi mais fi mu toog muy jaxaw fii dafa amoon feneen foo xam ne du kër buur mais kër Linguère la ku jigéen moo fay ne falu comme moom di dox ci loo xam ne jigéen lañ la gën a intéressé mais nag am na ay dëkk yoo xam ne moom moo ko doon administré comme par exemple sa ndok bi nekk fii à côté ngeekoox yi nekk fii à côté et même il semblerait dans les temps Njaanjaay quartier Njaanjaay bokkoon na ci li nga xam ne Linguère daan na fa am une certaine autorité donc buur dafa jël ci pouvoir am astuut jox ko yaayam wala jox ko une bu ko koy euh, euh, yoral kon mu mel ni ñoom daanan am benn taxawaay boo xamante ni daan nañ ko taxawee ci wàllu xàq ak yelleefu jigéen ñi yan message nga ñu ci mën a jox. jigéen message bi ma ci mën a jox mooy jigéen moom na ko jox ci jigéen na ko jox ci ndax lu jigéen bokkul réussite bi dina jafe loolu nag ñun la yoo xam man fu fu ma mën na yóbbu ab actuellement li may def bu sumay jigéen wala samay yaay jàppul. dana jafe te sax day dem au la de sax parce que jigéen ñi mooy ñi nga xam ne yéen a bokk men par man par exemple ñiy falu fii lingeer yi ay gelawaar lañ lan mooy gelawaar métis si séeréer la ak euh, euh, nu ñu ko waxati euh, mandeng métis loolu moo nekk ay gelawaar gelawaar nag pour nga nekk buur fii il faut que sa yaay nekk gelawaar lingeer aussi pour nga nekk ko il faut nga nekk Guelwaar donc ci men nga koy jële le trône du Sine c'est c'est matrilinéaire yaay moo la koy jox man mii di la wax léegi bu ma fi jógoon tey suma benn doom mënul nekk mënuñ falu parce que am amuma jabaru Guelwaar samay doom ay Guelwaar juluñ leen donc moom ñoom mën nañ leen wax ay doomi buur mais duñ yéeg fii ma toog tey ah siis bu ndaw wii <laughs> duñ ci toog ñoom <laughs> mbir mi du lu ñuy donnante ci ci mais ci meen lay doon macha allah. da nga koy sa yaay <laughs> kii li mu doon wax léegi man suma yaay Linguère la woon mu ngi nii kii ko remplacé woon rakkam la woon ñoo bokk ndey ak baay mais mënoon nañ bokk ndey rek amoon nañ ñuy bokkal baay mais ñuñ bokkaay baay ñoom mënuñ falu Linguère. sa waajur wu jigéen lan moo la gën a marqué ci moom comme Linguère. ah elle avait beaucoup d'autorité parce que moom bi ñu koy fal pratiquement. Euh, ay sëram yëpp demoon nañ ba muy des ñi nga xam ne moom moo leen mag mu toog fi ba ñoo xam ne mag na leen dem bàyyi ko fi mu dese benn sëram ku mbokkal ndey ak baay bi mu fi jógee moo toogoon mooy Adja Daba Dieng léegi nag maire yëpp jax nañ li ci des mooy suñu jigéen rek ñoom ñoo mën a falo fi mu ne professeur nga nga dégg kàddu yi nga xam ni wax na ko muy kàddu yi am solo ci euh, rôle bi nga xamante ni Linguère doon na ko jouer ak euh, maanaam nees koy tànne euh, loo ñu ci mën a yokkal. waaw li mu wax de mën na sa yokk dara nax noonu la waaw c'est-à-dire que buur moom fi mu nekk ak Linguère fa mu nekk li leen wuutale mooy question de genre waaw kii moo yilif lépp moo yilif ñëpp waaye nag comme góor góor la te jigéen jigéen la moo tax sax. ñoo ñooñu am moom jigéen dañu am seen bopp seen tribunalu bopp boo xam ne ñoom ñooy àtte seen bopp waaw foofu sax Linguère moo jiite tribunal boobu waaw pour won la rek ne la lim la wax c'est ça li mu wax aussi amul leen lu ciy teg parce que fii moom men moo lay def lépp muy Linguère muy buur lépp ci men lay ci men lay jóge moo tax bu ñu nee Linguère rek soit yaayu buur la wala muy euh, euh, sëru buur jigéenu buur maanaam exemple la ci moom mi exemple la ci maamam ku mu dofeen fa mag maama Kumba Ndof la mag yaayam Linguère la woon Linguère ñi laa jógee ko jur waaw sëram Selbe Ñaadi la woon kon eh, kon exemple boobu dafay dellusiwaat ci moom comme li mu la wax rek loolu tamit c'est un exemple buy wone ne li mu wax aussi noonu la waaw nguur gi noonu lay doxee. Euh, macha allah muy ay tomb yu am solo euh, di jàngale ni tey kilifa yi ñoom euh, lépp luy wàllu administration lépp luy wàllu développement xam nañ ko kon li ñu war ñun en tant que sénégalais moo ñu jéem taataan suñu cosaan jéem a cibb ci suñu xam-xamu mag ñi su ko defee développement bi ñu bëgg incha allah di ko mën a am euh, incha allah dañuy ànd ak professeur daal di xool barab yi nga xamante ni tey moom moo nekk fii ci Sine ak rôle yi nga xamante ni tey soxna yooyu tey ñu ngi ko doon joué ak ni leen doon fale loolu lépp incha allah fii ci Jaxaw Sine ñu ànd. <laughs>

yi nga xamante ni tey ba tey ñu ngi koy war lépp rek ci bis bu am solo bi nga xam ne tey ñu ngi ci mooy bis bi ñuy fal Linguère euh, professeur tey ñu ngi ci barab fii ñu nekk fan la. waaw fii nag mooy kër euh, ñi sant ture te yor ndombol tànku bisik waaw fii mooy seen kër. lan mooy bisik ak kan mooy bisik. waaw loolu nag defe naa ne mënee su ko wax fii ma taxaw nii waaye bisik ndombol tànk la boo xam ne ñi gën a jege buur gën a sës ci moom di ay conseil spécial am ñooñu ñooy bisik dégg nga léegi bi ñu koy woy ñu ngi koy woy di ko attribuer benn dëkk bu ñuy wax Senghor cest à ko moom mii bi mu fi ñëwee buur bëggoon mu toog fi jaroon na ko mu neexal ko nekk ko léegi damaa bëgg nga wër siin ba mu daj nga seet dëkk bu la fi neex ma may la ko maamu kii bi mu wëree da ko ne Senghor daal moo ma neex mu ne ko may naa la ko moo tax léegi gis nga eh, kii woy léegi bi muy woy mu ngi koy attribuer naan ko yàlla Senghor <laughs> waaw kii nag mooy Bisik Galadio Touré nekk un inspecteur de l' un inspecteur de l' à la retraite ñëw téyewaat ndombol tànkam ci aadam ak cosaanam bu lay won ne encore une fois le Sine n'a pas oublié son histoire waaw ndax kii fi mu ne woon fii fi mu toog ni mille six cent trente et quelque ay maamam ñoo fi toogoon ba léegi soppeekool waaw loolu laa ci manoon a wax xam naa moom dana koo gën yaatal kon bala ñoo ñëw ci kan mooy bisik ak rôle bi nga xam ne danga koy joué dañuy bàyyi ñu bàkk ko comme ni ñuy bàkkee buur te ñu wala kay na koy mbalor yey alaaji bisik ture te ñu wala kay na koy mbalor yey galaajo ture unto njeme njira yasiney tabire mangone unto njeme njira yasin tabire mangone birema kubanjaj birema softe ndeban ama pakamberi borom nak soma ama lobesel be njaay borom jakarlo tutak junjung bu jibe buura feeñ bisik ture waa naar yey naar yaa nga jilaase heem bisik ture moo daa naar yaa nga jilaase bay bisik ture ama faga waa naa sori wuliyeen buur kumandang tura bisik la biram an bisik la dema maaran bisik la ama lobe bisik la wunto njeeme njila yaasin taa bireema ngooni bireema kumba njañ bireema sopte ndeban ama faxamberi borom nak sooma ama labasal benjaay borom jakarlo bisik bi si ney alaaji bisik tura bisik bi si haa ee naare hey doomi ñaay bu rey hey mbaloore njëkka fe cagiye tax la mu cagiye bu coow la yagiye alaaji gi la yaa doonu bisik yaa la seengoor alaaji Bitik Ture yaa doon bisik yàlla si ngoor sa etu baay baa ngi nii naar moo daa naar yaa nga njilaasim jangi baaxum jang baax boy ngot ka siriin doon unto jeema njira yaasin taa bireema ngooni bireema kuma njañ bireema softe ndeban ama faxamberi borom nak sooma ama lobe selbe njaay borom jakarlo tuutak junjung bu jibee buura fe junjung bitin joobe yaa doonu saadimi ci cuucuun sama ma deenu ta seeni yaram ya bax pali ma ko yaay tag gawar ga kenn ñemewu koo jege tuut ak junjung junjung ak tayit lu su ñuul yaxa ci def unto jeema njira yaasiine tabire mangoone yaa doon ama faxamberi ama loobe selbe njahay jagi baaxum jag baax boñ ngot ka siriin doon saxla ture nga bokkal baaxi suwaa do nga bokkal baaxi may saga bokkal baaxi Moustapha nga bokkal baaxi Mayekoor nga bokkal baaxi Cheikh Touré nga bokkal baaxi unta jeme jira yaasiidey taabiree mangooni alaaji bisik Touré duma la way ci bajo bi yaa ka baax dama lay way ci sa maam moo doon ak jayre ama faxamberi borom nak sooma ama labasal be njaay borom jàkkarloo sa maama saloo kay Touré kay lu ci ñun ca def sa mama saloo kayit kay lu ci ñun ko ca def sa mama deenu ka teeni yalam ya bali paxama ko yaay gawar ga kenn mu ñu ko jege saadi mi ci cuucuun junjung bi ci ñoom moo daan fa jaare ñoomey bu junjung jibee buura feeñ alaaji Ture Walda Ture alaaji Ture Ture gilaaja Ture yee sori wuleen buuru Ture iya sori wuleen buuroo ture iya bu judung jibee buura feeñoo ture iya bisik ture waldaa ture iya bisik ture waldaa ture oko suwaado ture bisik ture waldaa ture iya waali njaayu waldaa njaay iya waali njaayu waldaa njaay waa joojo say nandoo feen njaay waa joojo say na Ndofeen Njaay yeewu la Yàlla njul Njaay yee siidi bu yam loola Njaay yee siidi bu yam loola Njaay awon siidi bu yam loola Njaay waa joojo say na Ndofeen Njaay ewal daa Njaay noonu la autorail bu duggee bu jibee gaar faaw mu corné tey euh, li day wane rek maanaam euh, taxawaay bi nga xamante nii bisik am na ko fii ci Sine euh, ñu ngi koy nuyu baax di ko siyaar di ñaan suñu borom mu guddal fanam yaakaar naa wax ci moom nag dina jafe ndax day nit koo xamante ni borom xam-xam la nit koo xamante nii daa nekk bàyyi ñëpp nekki maami ñëpp yàlla yàlla guddal fanam bisik ñu ngi lay siyaar. delloo naa siyaar Seck maa ngi leen di siyaar bu baax a baax a baax Seck. tey ñu nekk ci bis bi historique muy bis bi nga xamante ni tey dañuy fas ne samp Linguère Bisik am ci rôle bu am solo ban rôle la Bisik am ci samp Linguère. loolu daal euh, Cheikhouna mën naa koo gàttal mooy fii muy buntu pal kër gi ñu nekk nii kër Bisik gi muy buntu pal bu ko bëggee wax ci français dama naan c'est la porte du sacre la porte du sacre. balaa ngaa falu fii foog nga jaar ci kër gi bu njëkk ba nit ñi daan nañ fi ñëw ñi war a falu daan nañ fi ñëw am fi même un mois ay dox di dox ba ci yàgg mu nekk ay semaine ba ci yàgg mu nekk une semaine trois jours mais minimum fen quatre heures et dans tout les cas sa pal balaa mat nga jaar fii ñu ñaanal la nga génn ñu ñaanal la fii donc mooy buntu pal gi bisig nag moom mooy borom kër gi waaw borom kër gi mooy ki fi sës bi nga xamee ne euh, ñeneen ñi seen temps passé na bisig yu bëri dégg nga ndaw si ni mu ko waxee tey jii man la fi yàlla teg mooy jéem a doxal nag di jéem a doxal nag xam naa nax ak guma sax ñoom fañ yegg mais maa ngi jéem rek te loolu mooy solo bi c'est-à-dire jot ci sunuy maam puso bi bu mu réeree ci ñun puso bi bu mu réeree ci ñun Cheikhouna voilà en substance réponse bi. Euh, professeur ñu xam ni BISIC am na rôle bu mag boo xam ne mi ngi koy joué fii ci Sine euh, lan nga ci mën a tënkal lekk ci rôle BISIC bi nga xam ne am na ko ci digganteem ak buur ak rôle yi nga xam ne mi ngi koy joué ci ci di Sine. waaw xam nga rôle bi ci gën a ëpp solo te gën cee ëpp engagement nga xam ne mooy rôle boo xamante ni ñëpp fekkuñ ñëpp fekkante wuñ ci mooy bu réew mi soxla ay bakkan pour exister w day daanu moom ci boppam su boobaa nag ñii wër buur su boobaa ñooñu ñooy dëgg dëgg dëgg dëgg gaa yi waaw te woykat bi léegi dégg nga mu woy lim ay maamam yu daanu ci ay toolu xare am na ñu daanu fandan bi ma ba ñëwee am na ñu daanu njob am na ñu daanu feneen ak feneen ak feneen kon loolu moo lay won ne la rek noo sol ma amoon nañ ndombol tànk bu leen ñëpp xamee nangul leen ko mais réew mi bu ñu engagé woo ci lépp luñ ci mën di engagé woo ñoom dañ ciy bokkaale waaw maanaam munoo am palug buur réew mi ne ci fitna nga toog sa kër ngor mayewut loolu waaw te ñoom dafa am nag benn touche particulière boo xam ne moo ko fi bàyyi tey ci xew-xew bi fi xew ndax boo ne Touré ne Njaay Touré ak Njaay boo génnee siin ñaari sant la mais boo duggee siin Touré mooy Njaay Njaay mooy Touré amul différence àgg na ci sax ba. ku sant Njaay bu dëddoo bàyyi ñaari soxna keneen ke ku sant toure lañ koy jox ku sant toure tamit bu dëddoo bàyyi ñaari jabar keneen ke ku sant Njaay lañ koy jox loolu nag lu yàgg la loolu histoire la pour wone ne famille bi benn la waaw moo tax Linguère la ñuy fal waaye kër yi yëpp boo fa duggee animation bi fii dong la am te fi mooy kër bisik jërëjëf professeur ci kàddu yu am solo yooyu waaye mu mel ni tey bis bi am na ay délégation yu am solo bala ñoo ñëw ci délégation yi rek euh, bisik euh, tey euh, ñu wax Linguère lan mooy rôle Linguère ci kaw su fii nga xamante ni tey moom mooy royaume bi lan mooy rôle bi nga xam ni Linguère doon doon ko jouer parce que doomu aadama mënuñu dox te jigéen amul jigéen ñëpp xam nañ taxawaayam mais particulièrement tey siin ba tey dañuy jox gëdd googu ñu koy jox jigéen ci jamono ji nga xam ne ñi ngi woowee mondialisation ñi ngi wax genre ñi ngi wax leneen ci cosaan suñu loo xam ne ñoom moom lañ fi bàyyi woon lañ a baaxee ci waaw Cheikhouna xam nga da ngay gis bu njëkk ba mag ñi buñ waxtaan waxtaanoon ci penc mi ba wax ji xaw a dañ naan ku nekk na dem waxat na ku nekk na dem waxtaan ak ngegenaayam ngegenaay kenn du wax ak moom boo déggee ñu ne ku nekk na dem wax ak ngegenaayam ba mooy ku nekk na dem consulter ji sa bu guddee da tëdd sa jabar tëdd sa soxna tëdd. nga ne ko mbir mi nii lañ fa wax mu ne la lii de nii la lële nële la mbaa fàtte bu leen nangam loolu mooy ngegenaay li donc góor gu nekk danga nga war am ngegenaay bu loolu weesoo Linguère mooy kenn dafa mel ni mooy représentante femme yooyu yëpp jigéen ñooñ ñëpp nekk ci seeni i di am ay jafe-jafe di am ci day waxtaan ak seeni i borom kër ñooy waxtaan ak Linguère looloo koy chargé ba moom itam xalaatam dafay leer. ba bu penc amee mbaa ay mbir su amee ñu laaj ko ci xalaatam ñaare xalaat booba mooy mooy prospérer loola mooy liggéer waaw ñu mun a wax du du du jabar yi nag du soxna nag buur du soxna buur de bàjjanam lay doon mbaa doomu bàjjanam mbaa doomu jaayam mais du jabaram xam nga ci fu mu nekkee jabari buur <laughs> am na yéen yéen ay borom xam-xam yi mais ñu daal ñu daal liñ jàpp ñu daal liñ jàpp mooy ku jege buur la ku jege buur la ku ko jege jege jege la. fi ñu nekk nii nag ci suñu institution royale moderne bi ñun dàpp rek quatre ou cinq institution yi buur jaraaf bisik ak farba cinq institutions yi lañ jàpp waaw waaw ku ci nekk nag am na sa rôle kii mooy wax ak jigéen ñi mooy lingeer. mooy wax ak couple yi nekk en difficulté moom bu demee ba nga xam ne ñu ngi ci période de soudure c'est-à-dire jafe-jafe nawet bi taxaw na dund bi manqué na ci moom la ñuy jooytu si waaw ci moom la ñuy jooytu si mu jooytu si ci buur buur woo farba ne ko toppatool mbir moomu voilà en gros daal voilà ce que ça signifie. macha allah mooy role yi am solo euh, professeur ci jamono jii nga xam xamante ni tey euh, euh, ñun daanaka ñu ngi jëggaani ay ay ay xam-xam yu bari di jëggaani ay cosaan cosaani jàmbur lu mel ni am ci dëkk bi ban message ngay lancé kilifa yi nga xam ne ñooy dégg sa kàddu ak xale yi nga xamante tey xëy na xamuñu lan mooy Linguère mais xëy na ñi ngi xam genre ñi ngi xam ministre de la femme ñi ngi xam ñi ngi xam ban message nga leen lancé en tant que professeur. waaw xam nga tey àddina dañuy wax dañoo war a jox jigéen ñi cër dañ leen war a xajal ci administration et cetera loolu bañ koy def yàgg na tey ki ñuy njëkk a introniser fii comme Linguère jox ko tey loolu ay téeméeri téeméeri at lu yàgg la Linguère du tey lu yàgg la ay responsabilité la yoroon Linguère yor na ñetti dëkk di ko gouverner léegi bu gisee gouverneur bu jigéen moo bëgg a yéem nit ñi réew fii Sénégal am na ay jigéen ñu fi jiite ay état wàllu ay jigéen jiite nañ ko réew yëpp jigéen jiite ko ñun àggaguñ foofu. ñun suñu maam yi fi ñu tolloon ci genre ñun àggaguñ fa waaye nag genre nañ ciy def lenn loo xamante nii dafa jar a bàyyi xel kii liñ koy jox muy Linguère de ko mérito doon ko xam ko ñu soog ko koo jox waaw juddoom may na ko ko expérience am fi mu jaar may parce que ay maamam a ko doonoon mu nekk fa ak ñoom parce que li ñuy fàtte mooy Linguère ci boppam cupan gëla mu dëkk centre d'éducation la ay xale yu jigéen yu bëri ñoo fa yaroo ñoo xamante ne elle aspire à être Linguère ëllëg fa la ñuy defee seen éducation waaw kon ñoom xam nañu kon centre de formation du tey waaw lu fi yàgg la jox responsable jox ko jigéen du tey loolu du lu ñuy jàngal ñun yow ñun xam nañ ko bu baax a baax. waaw xam nañ ko bu baax. merci professeur muy ay kàddu yu am solo kon li am solo rek muy en tant que sénégalais ñu delluwaat jéem a jàng suñu cosaan jéem a xam suñuy maam li borom xam-xam ba naan wa kun rajulan in ataw baadahu yaquluna marra wa hada al athar kon jar na ñu delluwaat cosaan xam suñuy maam xam ni doxalin waaye nag képp ko wax euh, siin wax Yandé Codou Sène tey ñu am fi doomam fii dañ koy bàyyi rek mu daal di jibal bàkk bi ndax loolu ci cosaan bi bokk. ma ñëw fii kër ama fa kër Biram xam ne Yandé Codou sama yaay man may tawam moom fii la yaroo Yandé Codou bu daan woy waa kër bi si ture yi du doyal. muy woy waa kër san moon yi du doyal muy woy waa kër mankodu du doyal li ñuy wax ne luñ la jàngal danga koy namp ci ween gaynde gaynde gaynde bugul moom xam ngeen ne yàpp lay dunde yee lamin wa yee yalmanda juni yee xam ngeen ni yee yalmanda juni lamin bay ñoo jur ngal manda juni yee gaynde gaynde gaynde boorangi gaynde gaynde bu jur terte yeen pol ya ye war jomi gaynde gaynde bu jur terte yeen pol ya ye war jomi ye lamin fay ye yalmanda june wagan biram jaag yer yalmanda june nano ngana san moon yalmanda june mamadou fayo nano ngana san moon Mamadou Faye xam-xam ka Lamel Faye labde maak Salingeer ba Faye guna baak jefi maam se ƴa koy fey dugudugu waagaan a xañangi waagaan ak yaakisi waagaan ker waagaan duñu daw lat baba njeme ndogo jile sanu merkatimo kelwaar yam sanu biram maalaw ana Mamadou Faye xam-xam dañ koy doon Mamadou xam-xam dañ koy doon hey Mamadou Faye yaamo kooro paax yambugun mbato timma ee eh, yo koro pax ya yumbugun mbato timma ee eh, fa yo koro pax ya yumbugun mbato timma saltigi ñala dana koro pax ya yumbugun kina kore yayum bukun ba yey vayo koropa yayum bukun ba tote madu vayo kina kore ay yey mba ozom yey ndevyo mba re mba ozom yey aye mba waaw dégg ngeen kàddu yooyu am solo yooyu nga xamante ni tey euh, kàddu yu cosaan la fii ci kër gi euh, waaye bisik mu mel ni tey bis bi bari na ay délégation yoo xam ne jóge nañ ci ay place yu fasanteku euh, ñan ngañ ci mën a limal ak yan kàddu ngay jëme ci ñoom waaw man day dama bëggoon gërëm sant ñi ma wuy si nga xam ne mooy sama naataango yu jógee ci kawlax muy fay bële ak Assane ak bari Baro ñooñu dama ne jóg leen rek ñu jóg ñëw fekk si ma maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant di leen ñaanal di ñaan aussi bés bi xam naa ne falaat ren sax duñ ko yàkkamtiyaat waaye ay événement dinañ fi xew ay set 7 di nañ fi xew lépp te lu xew boo leen waaye ñu ñëw mooy sama xarit yi nekk Kaolack maa ngi gërëm aussi di sant suñ mbokk joolaa yu jóge aussi aussi ba fii xam nga sori na mais ñoom itam lu xew ci kër gi lu xew ci jaxaaw lu xew ci réew mi ñu ñëw fekke gis nga la reine moo toogoon fële léegi këlee na le grand ba lay neloon na le moom mooy seen porte parole mooy seen lépp le vice-roi est parce que xam nga ñoom seen buur du génn ñoom seen buur du génn ñoom ñoo koy génnal maire yi ñoom lañ àndal ah, bu loolu weesoo nag yow ak sawaay a ah, man <laughs> xaw ma lu ma leen di wax <laughs> xaw ma lu ma leen di wax di rafetlu seen taxawaay rek di rafetlu seen taxawaay ba xam nga yow dama la wax man dafa mel ni sax bett naa la normalement waroon naa laa bett parce que je t'ai la chose à peut-être quatre jours de l'événement mais teewul da nga jóg woo sa waay mu ne la y a pas de problème te moom dafa ma fajaru waaw loolu neex ma loolu nag maa ngi leen di gërëm maa ngi sant ñëpp di ñaanal ñëpp. ba tey ci gan yi nga xam ne tey ñi ngi fi muy euh, monsieur Lamine Faye ñëw fii euh, ci teewaay bi nga xamante ni tey mooy palme bi nga xam ne ñu ngi koy fal Linguère euh, cheikh bi ñu ngi lay seer bu baax. jërëjëf maa leen di siyaare di leen gërëm di leen sant euh, ñëw nañ fi teewal euh, tous les amis de Kaolack si euh, cérémonie falu Linguère bi su suñu xarit moo ñu invité monsieur Galadio Touré yàgg nañoo xamante moom depuis ba nekkee ay xale muy jànge secondaire Euh, au lycée de Kaolack euh, ba tey ba ñu dem ñu dem ñëpp enseignement moom par la suite mu nekk inspecteur de l'éducation nationale je crois qu'il a servi d'abord à Podor ensuite à Bignona Rufisque et Bignona mais Bignona la gën a yàggee wala ko ñu bëri gën a xamee euh, ku baax la ku gore la ku am reconnaissance parce que lim ñuy def nii mën na ko ci bay a fekk mën na wax ne rek ay j'ai une cérémonie à chez moi mais il di dit une cérémonie chez moi et je tiens à ce ngeen taxaw fekkee ko gis la fa xew kontaan nañ trop yi xam ne nag ne kii bokkam yi bëgg nañ ko gëm nañ ko donc c'est vraiment ñu ñi ñëw fii ci délégation bi kontaan nañ trop ñu waroon na waroon a ñëw mais dafa am dafa correspondre ay beneen cérémonie boo xam ne beneen groupe ba dem nañ euh, fii gànjaay ci ay ci ay ñaan si mag moo moo moo ñu fa représenté euh, grand El Hadj Diop ñu di ko saa combi saa combi bu rajo Kaolack il était ancien léegi rajo la nekk mujjee wala mujjee alors moo fa ne ak Omar Khady donc euh, ñun ñi nga xam ne ñoo des fii ñoo ñëw fii y a Baro enseignant à la retraite y a Omar ñaa si benn xarit xaritu galaajo moo Galadio tout le temps ñooy ànd à Kaolack vraiment loo ñu mën indi mais li ma leen mun a wax daal mooy kontaan nañ sant nañ yal na ko yàlla defal jàmm defal ko sutura te pal bii. yal na leen jig ñoom jigaale ñu jigaale bokk ja jaxaaw e, e, jaxaaw xamoon xam naa ko parce que j'ai un ami intime Thieda euh, euh, euh, Béchar Fall Béchar Fall c'est mon ami intime xam naa ko bi mu nekkee à Fatick comme enseignant man ma nekkoon Kaolack mais dama doon dama leen doon fréquenter. en tant que professeur en tant que borom xam-xam bu ñu tolloo ci jamono ji nga xam ne dem nañ ba suñuy aada ak suñuy cosaan lu bari réer ñu euh, nga ñëw fii ci Sine nga gis ñuy dundal lu mel nii tey lan ngay yëg ak ban message ngay jox parents yi ci suñu wàllu aada ak suñu cosaan. Ah, mais man man d'abord euh, séeréer la bu bu euh, lii séeréer di wax Pama fii nga ko lakas yoonu ino moo ma dal parce que bu ngeen di wéy di wax lii man automatiquement dama dellu ñoo joor ñoo Niodior parce que Niominkala. Et bien évidemment que je suis euh, originaire du Sine mais nag sama parents yi dañu yàgg dans les îles waaw donc euh, depuis le royaume de Bicel ba tey donc loolu moo ma dal euh, kontaan naa trop ci yéen lii moom nañ ko bu fekkee ñëpp mun nañ ko saxal séeréer yëpp buñ ñu ko mënee saxal seen gox. dina tax ba réew mi alors suñ doom yi suñ sët yi duñu reer parce que quoi qu'on puisse dire suñ doom yi suñ sët yi xamuñu li réew mi di moom daal dégg nañ séeréer xam nañ séeréer mais xamuñu cosaan te cosaan boo xamul sa cosaan da ngay reer waaw ku nekk dina la yëpp ku la war a xeeb xeeb la yal nañu ci yàlla musal vraiment kontaan naa trop. professeur euh, tey képp ko wax buur wax relation externe mais relation interne. Euh, muy ay relation yoo xamante si tey daana dox ci buur yi ci seen biir fii ci Sénégal muy cosaan yu am solo euh, xam naa professeur bari ñu sori dañ lay bàyyi nga présenté gan gi nga xam ne tey moom lañ toogal mu def déplacement bu am solo di wone relation yi nga xam ne suñu maam yi ñu ngi ko doon ci seen biir muy relation jàmm ak salaam mais aussi di jàngale diplomatie bu am solo boo xamante ni ci suñu histoire ñun sénégalais yi mi ngi ci biir professeur kañ lañ toogal. waaw salaamaaleykum euh, Bamba kii ñu toogal nii boo xoolee mbaxana bi mu sol dana am fu mu la yóbbu. mooy la cour royale d'Oussouye nga xam ne ay joolaa ñoo ko dëkk ñoo fa dëkk am seen royaume am seen buur waaw buur bi nag yàlla dafa dogal moom duy déplacé wu waaye à chaque fois bu dara xewee siin dafay yónni délégation boo xam ne soxnaam moo koy jiite waaw mooy la reine d'Oussouye mooy Aliou mooy waaye dafay ànd ak kii parce que kii mooy porte parole roi d'Oussouye boo demee aussi moom moo lay recevoir ci cour bi ku fa dem daal gis nga taxawaayam waaye nag diggante si joola ak séeréer dafa doon loo xam ne affaire deret la te deret dafa sacré kenn du ko fooye mooy relation cousinage boobu ngay dégg ndax dégg nga ne Buur Sine dem na fa ci benn caravane de la paix waaye laata loolu ñoom ñoo fi njëkk a ñëw te ñoom lu xew fii ñu ñëw waaw kon ñoom tamit mbir mi dañ ci am wàll surtout Casamance xam nga Casamance moom jigéen nam fa mel ñëpp xam nañ ko am nañu ay reine am nañu ay prêtresse waaw ñun tamit fii am na fi mais feeñul bu baax. Linguère la ñu am am nañ ay prêtre mooy saltige yu jigéen am na fi waaw kon nag ba léegi boo xoolee ñaari société yi presque ñoo bokk seen tradition ba pare aussi ñoo bokk deret parce que Joola ak séeréer mag ak rakk lañ cousinage bi soog a ñëw dugg ci. Euh, merci professeur ci kàddu yi nga xam ne mooy kàddu yi am solo yi xam naa duñu sori dañ koy bàyyi mu présenté wu ak aussi wax ñu lan moo waral teewaayam fii ci Sine. Ah, jërëjëf et di remercier professeur tamit euh, man maa ngi ci tudd Ngoti Ismaïla Diédhiou dëkk ci Oussouye euh, comme ni ko professeur waxee donc euh, mais tamit ma yokk ci dans le cadre de suñu diggante ñaari institution yi donc euh, man maay co-président professeur Jaraaf bi Massène Sène donc euh, man maay présider côté institution royale bu Badiouma yi bu Oussouye Donc euh, le royaume du Bodjoumaï, l'institution avec l'institution royale du Sine, le royaume du Sine, daanak maanaam tey benn royaume la buñ ko xoolee buñ ko xoolee donc depuis ca maam ya ci Aguène et Diambone aujourd'hui dem nañu ba diggante Sine ak euh, le royaume bu Bajuma yi dem ba doon benn ba nga xam ne que lépp lu xew ñooy fi lépp lu xew tamit ci royaume Bajuma yi waa Sine ñoo foofu donc ñoo ngi fii pour fekkee intronisation Linguère euh, Seynabou Ndiaye euh, di profité aussi di jaale Linguère Adja Daba Dieng donc euh, ñëwoon nañ ci jaal bi jaale si mais bi yoon intronisation Linguère bi moo ñu andi muy mbégte ci ñun ndaxte Linguère comme reine comme prêtresse yi dañu am solo ci suñu société waaw dañu am solo trop ci suñu société te mu xam loo xam ne ñun lu ñu fonk la euh, bu ko nit di téye aada sax ñun duñ ko téye aada ñun dañ koy téye comme suñu propre religion ndaxte boo xoolee ba xool suñu propre religion la maanaam lu may faral di wax gars yi tubaab moo ñuy ooyee ñun religion traditionnelle moom mu ooyee boppam religion n'est-ce pas mais ñun tamit moo la ñu ooy religion traditionnelle donc euh, ci diggante maintenant ci diggante institut Sine ak euh, le royaume bu Bajuma yi bu liy taxawee ñu yëg ko far Sine yëgal ñu ko mën nañoo def leneen lu dul teew fi nag muy kàddu yi am solo mais tey euh, lii dafa am lu bari lu muy jàngale muy wàllu diplomatie tey am na ñoo xam ne dañuy fay ay millions yu bari di ko dem di jàngi te suñu maam yi sampoon ko ban message ngay jox tey suñu jeunesse bi ci wàllu diplomatie ak jàmmoo ak nekk benn gi nga xam ni suñu maam yi nekkoon nañ ko. loolu dama ciy sawar trop te may faral di ko wax euh, di poser souvent la question ñi nga ñuy naan seen bopp grand intellectuel mën naan leen pourtant professeur tey balaa mu bind dana dem seeti jaraaf. ki nga xam ne ki bindul dara depuis cinquante ans mu ngi toog foofu fàttewul dara mu jàngal ko diggante professeur ak jaraaf boobu toog ci dëkk ba kan mooy intellectuel bi donc ci wàllu diplomatie dafa am solo trop ci diggante ci diggante ñaari ñaari institution yi ak ci diggante joola surtout ak séeréer et c'est devenu très sacré Euh, di impliquer ni ñi le retour aux sources ñu dellu si ci euh, li fi maam bayoon parce que li fi maam bayoon dara dañu fi te li fi maam bayoon boo xoolee ba xool boo ñëwee di ko jàngat di ko gestu comme noo ko waxee tu te rends compte que ndeke li may fay ay millions di jàng yëpp moo ngi fi du ci wàllu gouvernance du ci wàllu comportement du ci wàllu euh, économie ak lépp ak lépp lépp li fi maam yoon moo ngi fi donc dafay rafet dafay baax ñun tey ñu dem découvrir tubaab bi yoon la parce que ça c'est une mais dafa baax tamit ñi xam ne ci tey tubaab bi mu ngi ñëw di jàng fii dem di ko def dëkkam loolu am na donc euh, vraiment moi j'interpelle toute la jeunesse j'interpelle ceux-là qui se disent ñu dellu si aux source dellu si au valeur delloo si delloo si ci cosaan ak aada donc euh, c'est ce message là mais parce que boo ko boo ñu ci dellu si tout ce qui est diplomatie et cetera ak loolu yëpp mu ngi ci biir aada mu ngi ci biir cosaan et de essayer dans notre aujourd'hui dans nos valeurs. merci beaucoup muy ay kàddu yu am solo kon tey euh, mbokk yi nga xamante si tey yéen a ngi ànd ak ñun fii ci Jaxaaw Siin muy bis bi nga xam ne bis bu am solo di bis boo xam ne histoire retiendra. muy bis bi ñuy fale euh, Linguère euh, muy rôle boo xamante ni rôle bu am solo la di wane rôle jigéen suñu maam yi bàyyi woon ko fi mbokk yi incha allah ci yeneen i jotaay ak yeneen i mbir yoo xamante ni tey euh, mën nañ ci gën a yaatal bu soobee yàlla sa kàddu gu mujj lan la. sama kàddu gu mujj di remercier Sa Majesté le roi Sibilou Mbaye Diédhiou di remercier aussi Sa Majesté Bour Massini Niokhobaye di remercier aussi tamit sa majesté la ren Aliou mooy Diédhiou ak Linguère Seynabou Ndiaye ñi nga xam ne ñu ngi koy doora a introniser donc di remercier ñooñ ñëpp di rafetlu euh, di rafetlu aussi teewaayu vice roi bi nga xam ne mu ngi fii ànd ak ñun mu ngi fii ànd ak ñun euh, nga xam ne ki tamit lépp loo xam ne ki diggante séeréer ak jola wala lépp suñu au roi bi ren bi pour teewee vice bi tamit day tey day teew mais lii bu tey bi moom dafa gën a comme ni ko olof dafa gën a ala daw mi ndax y a une de la reine sa majesté la reine Aliou mooy Diédhiou nga xam ne moo ngi fii depuis 48 euh, heures pour accompagner sa grande sœur Seynabou Ndiaye pour gën ko dooleel ci mbirum ci lu mu nekk euh, sur sa nouvelle mission parce que cette mission la elle est noble c'est une mission c'est une mission sacrée xam nga sacralisme mooy tout l'intérêt tout l'intérêt de notre société et de nos valeurs parce que le sacré kenn du ko laam-laame kenn du ko argumenté kenn du ko commenté c'est ça parce que c'est sacré donc euh, di remercier encore aujourd'hui tous les Sine leen ne jokko njal leen naan que waaw que vraiment le Sine rayon encore à jamais et je crois que loolu tey wane nañ waaw wane nañ ko je crois même dans l'étalage gouvernemental aujourd'hui la réalité entre Joola ak Séeréer dem na ba feeñ nii kon jàngat yaa ngi nii et le ton a été donné entre l'institution du Sine ak l'institution royaume du Badiouma yi jërëjëf waa Sine jaaxal bi tiit naa foog ne sama wërsëg xaj na moo wuy si benn yoon mu ne la déedéet Seynabou sa mérite moom ngay gis parce que yow jigéen ñëpp la dañu sonn ñoom ñëpp a sonn du ñàkk nag benn bés ñëw yàlla nag teg la orma c'est-à-dire boobu yaa ngi jëndanteeg yàlla le bon Dieu a fait tout ce que vous avez de bien je m'adresse encore une fois aux femmes le bon Dieu a tout ce que vous avez fait. Et il prend un jour pour vous honorer. il prend un jour pour vous honorer. bul gantu yàlla naan ko xañ la danga ma bëgg jox sama wërsëg d'un seul coup na ñëw et encore et encore et encore mu jig ñu ñun ñu ñun ñëpp voilà si je n'ai pas oublié un point parce que ça ça me paraissait quand même important aspect boobu ça me paraissait important war ma ko woon a fàtte leneen

subhaana rabbika mbokk yi nga xamante ni tey euh, yéen a ngi ñuy topp tey ba tey ñu ngi ci bis bi nga xam ne mooy bis bu am solo euh, di bis bi nga xam ne ci la ñuy faral Linguère te yàlla dogal kii nga xamante ni tey euh, mooy borom bis bi di soxna bu njaay dañ koy bàyyi bu nuyoo yaa booy maa ngi lay ziar. ziar yàlla nangu ziar xanaa sant yàlla. sant yàlla boo xewlee ji say mbokk ñëpp sant yàlla bu baax a baax a baax a baax parce que li taxaw fii vraiment vraiment vraiment su ma xol sedd na war naa góor góorlu pour jigéen ñi war naa góor góorlu pour Sine Sine xam naa ne Sine man lañ tànn wax dëgg yàlla yal na ma yàlla jàppale ba liñ ma tànn duñ am déception yal na ma yàlla jàppale ba mën leen jàppale ba. liñ foog liñ liñ liñ euh, xaar ci man daal yal na ko yàlla defal parce que jigéen laa won nañ ma ne war jigéen laa maa maa war a éduquer la population maa war a muñal ñëpp maa war a jubbanti ñëpp yal na ma ko yàlla buur bi ak ci teg teg ko sur mes frêles épaules la yal na ko yàlla jàppale waaw parce que vraiment man dama xamul xaw ma daal siin daal gërëm naa leen gërëm naa siin gërëm naa ñëpp Sénégal ñëpp yal na yàlla def ma jig siin jig senegal senegal jig ma siin gën ma yal na yàlla defar nawet bi waaw ku feebar yal na ko yàlla wérloo ko am naqar yal na ko yàlla saafara yàlla yàlla mbég am daal yéen yàlla may mbég lu bëree bëri bëri bëri ci dërëjë rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salaam maam mu mel ni euh, jot nga junde ay ay yu am solo mooy maanaam taxawaayu taxawaayu Linguère ci biir royaume bi te buñ ko wax Linguère wax jigéen ban taxawaay la la am. taxawaayu Linguère daal mooy taxawaayu yaay mooy taxawaay def defarkat mooy taxawaayu euh, éducatrice mooy taxawaay muñkat mooy taxawaay loo gis mu ñaaw ko defar di def lu rafet di wax lu rafet di jàngal lu rafet. xamul nag ndax on sera à la hauteur mais ñu ngi ñaan yàlla nguur bi nekk à la ku am problème am yal na yàlla def ñu mën koo fajal ci sutura ci teraanga waaw donc ah, li ñu yàlla teg yàlla moo ñu ko teg mais yoon je dis pas qu'on le mérite pas mais nag ah euh, xam nga ya euh, ya ba dong dong moo moo nekk ki nga xamee ne eh, ak yàlla ñoom ñoo ñoo ñoo ils sont parfaits waaw yal ñu yàlla defal suñu imperfection yal na yàlla buur bi def ci saafara ba ah, du ñu kenn du ñu sikk daal ah waaw na am dina am ku ñu sikki mais sikki bi daal nekk lu tuuti loo xam ne vraiment du ñu yàqal man de ñaan naa yenn yàlla nekk yaayu siin nekk yaayu siin naka sama maam yi doon defee nekk yaayu siin yëpp comme mënu maa nekk yaayu Sénégal ñëpp yal na ma yàlla xëccal ba loolu yëpp ñëw ci dërëjëru Rasulullah Euh, tey mu mel ni bis bi ñu baree baree bari ñëw nañ teewee ko say mbokk ku nekk jóge fu nekk ñëw bàyyeeku ñëw taxaw taxawaay bu am solo bi euh, tey euh, ban kàddu ngay am ci waa kër gi ak aussi njaboot gi nga xam ne tey ñoom ñoo ñëw wuy si ak ak sa message. xanaa di leen di di gërëm di leen di ñaanal gërëmaate nag du doy fa gërëmaate ba jeexee daal fa laa commencé parce que lii moom vraiment je suis ému aux dama xaw ma lii lan la xaw ma lii lan la ndaxte dama ne man xëj na. je ne le pas ndax lii moom dafa ëpp dafa ëpp dafa ëpp dafa ëpp dafa moo tax may ñaan yàlla yal na ma yàlla may kattan boo xam ne ñii ma riiral ñëpp yal naa leen mën a fay jàmm fay leen sutura fay leen lépp jàmm am ñun ñëpp ñu ànd yal na ñu ànd ñun ñëpp yal na ñu ànd ñun ñëpp maa je demande la paix la prospérité la quiétude lépp jërëjëf rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jazakumullah euh, xam naa sama question bu mujj rek fi muy doon mooy euh, ñëpp gis nañ jamono ji euh, ñuy woote taxawaayu jigéen ci kaw suuf tey ban message ngay jox jigéen ñi ñi nga xam ne ñoo lay déglu. xam naa jigéen ñi mérite seen taxawaay luy mérite taxawaay mooy tu donnes le bon exemple à la à la à la à la famille l'éducation des enfants. Euh, et tout daal et la femme c'est tout lépp la jigéen mooy éduquer jigéen mooy enseigner jigéen mooy lépp bon nag yàlla ñu yàlla may ah courage boo xam ne dinañu assumer loolu yëpp dañ ko nañu mët jigéen daal di yàlla wax ci jigéen alxuraan wax na ko cosaan wax na ko lépp nañu nañu góorgóorlu daal nañu góorgóorlu defaraat jikko yi defaraat lépp ndaxte tout bon éducation est tirée de l'éducation religieuse alors bon war nañoo bu ñu nekkee julit war nañoo jàpp Coran def ko adapté ko fépp bon yàlla dañu may jàmm wallaahi. bu Ummina Aïcha bu Ummina Khadija bu na Zeynab muy ay soxna yoo xamante ni ñëpp marqué nañ seen i empreinte bàyyi seen i empreinte ci kaw suuf ki njëkk dugg ci lislaam jigéen la suñ borom jël saarub Alxuraan lëmm jagleel ko jigéen ñi comme jigéen ñi am na taxawaay kon ñu ñaan suñ borom mu woyofal yéen bi ñaan suñ borom mu yeggale ko bi jaay sallallahu alayhi wa sallam. Euh, madame Maye Ndiaye. Eh, maag bu mii ñuy looy tey Linguère suma rakk la ñu bokk benn bàyyi laa gara nga ñu jur donc tuuti rek laa ciy wax di ko ñaanal yàlla en bi ñu ko yenn yal na oyof ci moom yal na ci indi barke ci réew mi indi ci teraanga parce que Linguère du Sine c'est pas n'importe qui donc mun na ñaanal Sénégal surtout mu nekk jigéen nekk jigéen nekk en même temps institutrice donc éducatrice et je pense que euh, ni mu éduquer xale yi en étant instructrice noonu lay éduquer peuple bi surtout le peuple du Sine surtout la population plutôt du Sine euh, je pense que euh, comme ni ñu ko prôné rek avec le nouveau régime vraiment éducation c'est très important euh, bu ñu gisee rek suñu nouveau président bi ni mu yaroo ku gis sa yaram day daw ndax ni mu yaroo yaakaar naa ne ñu amati lingeer boo xam ne euh, séeréer la mais moom aussi dafa yaru ñëpp ñi ko wër muy ay rakkam muy ay doomam dañu yaru maanaam ñu yaru ba ñëpp bu ñu leen gisee dañuy kontaan ci ñoom donc ñaan nañ yàlla mu mu perpétuer cette éducation au niveau des autres jeunes ñu liggéey xam ne liggéey rek mooy euh, mooy defar nit soo liggéeyul doo am dara liggéey honnêtement sincèrement pour ton peuple ndax sa peuple bu ñu amee rek je crois que ñëw ñàkkoo dara waaw donc euh, euh, je suis très fière en étant éducatrice mu tombe régime bu mel nii vraiment je pense que l'éducation va et au top surtout pour les filles mu nekk fii encore nekk nekk femme nekk Linguère je pense que dans la population du Sine on trouvait vraiment une bonne voie surtout les enfants donc nañ seet ci moom ndax wax dëgg yàlla man de sama rakk la mais am na jox na ma cër am na yar am na teggin ci man bien que maa ko mag peut-être bariwul mais franchement euh, je me di que euh, c'est une bonne femme qui va donner une bonne éducation à la population vraiment je pense et quand je le di je pense c'est que sincèrement gëm naa daal te yal na ko yàlla def darajey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tim la garang jaay cosaan wecaane

yaay jokala garan yaay cosaan weccano Njaay njoka la garan Njaay tukane wetane Njaay njoka mbokk yi comme ni leen ko waxee woon rek euh, toujours avec euh, professeur euh, Mamadou fay muy professeur chercheur nekk boroom xam-xam bu ñëpp ràññee fii ci Jaxaw Siin incha allah dinañ taxaw ak moom ci ay tomb yu am solo bokk na ci lan mooy Linguère ak lan mooy rôlu Linguère ak rappel historique ñenn ci Linguère yi nga xamante ni marqué na histoire ak dernière Linguère yi nga xamante ni xëy na yàlla dogal mu fekkeek ñoom jamono ak kii nga xamante ni tey moom la ñu war a samp tey professeur ñu ngi lay ziar bu baax. waaw ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax. di la waxaat encore euh, jërëjëf merci beaucoup parce que gis nañ sa taxawaay ci lépp lu jëm ci histoire u rawatina xew-xew yu mag yi nga xam ne daf fi am yu mel ni 7 juin te ñu ngi ci cérémonie d'intronisation nga ñëwaat loolu jar naa jaajëfal daal. Euh, merci professeur euh, tey ñu war a def palum Linguère boo doon ñëwaat taxaw ci Linguère ak lan mooy rôle waaw Linguère nag rôle bi mu am. Euh, c'est un rôle boo xam ne dafa jëm ci wàllu jigéen ñi waaw boo seetloo moom rôle am yëpp foofu la jëm li ëpp foofu la jëm mais nag dafa am loo xamante ni aussi da cee da cee bokkaale te xëy na loolu mën nañu wax ne góor jee koy def jigéen du koy def waaw muy wàllu gouvernance waaw gouvernance moom góor lañ ko gën a xamee waaye fii ci Sine nag buñ la falee Linguère am na dëkk yoo xam ne yow yaa leen di gouverner. loolu moom role boobu góor mun na ko def jigéen mun na ko def parce que kii nga xam ne introniser nañ ko tey muy Linguère Seynabou Ndiaye euh, buñ delloo ci tradition tey à partir d'aujourd'hui dëkk bi ñuy wax Sandok ak dëkk bi ñuy wax euh, euh, sas Linguère ak dëkk bi ñuy wax Ngeekoox dëkk yooyu yëpp moo leen di administrer moo leen di gouverner impôts yi ñoo ñu di verser sax duñ ko verser cour royale déedéet ci cour ci pan lañ koy verser mooy ci résidence am. waaw kon loolu am na solo ndax moo yor dëkk yooyu di leen gouverner kon jigéen gouverner dëkk du lu bees waaw du xëy na nag lu bees lay doon boo gisee préfet bu jigéen gouverneur bu jigéen loolu lu bees la ci ñun xëy mais dama dans la société traditionnelle séeréer loolu lu fi yàgg la waaw ci biir rôle bi aussi ba tey xam nga ne euh, lingeer bi ci moom dafa am ay rôle yu bëri muy joué parce que éducatrice la éducatrice la parce que moom mi nga xam ne mooy diriger cuppante moom nekkoon na fa. waaw nekkoon na fa euh, ñu éduquer ko ba jamono di dox jamono dox ba yàlla dogal mu doon ko kon moom it rôle la responsabilité la yar bañ defoon ci moom ci biir cuppaan mu defaat ko ci ñeneen waaw moo tax fii da ngay gis xale yu jigéen yi nga xam ne dañoo bokk ci cour royal bi yëpp cupan la ñuy yaroo mais Linguère moo leen yor centre de formation la daal centre d'éducation et de formation waaw éducation bi mooy jàngal la àdduna jàngal la nit ñi séyee jàngal la yooyu yëpp fa lañ koy jànge waaw kër gu rëy rëy la nag mais tey bu ñu la fa yóbboo da ngay gis ne daa xaw a ndaw mais rëyoon na tollu toll nii ëppoon na nii foofu beneen rôle bu ci nekk mooy euh, moom juge la mais juge ci wàllu jigéen ñi waaw xam nga jigéen ñi ñoo xamante seen biir ñoom seen i taxe seen i luwaay bopp loolu nag. Euh, Linguère moo ne ci bopp bi mooy juge bi jigéen ñi bu ñu amee seen i jafe-jafe ba yoon war a àtte cuppan la ñuy dem mhm. Linguère moo koy présider mooy joxe verdict bi kon dafay laaj aussi nga jàng ba xam yoon jàng yaru ba mën a yar ay nit waaw responsabilité yi ñaari responsabilité yi dafa doon yoo xam ne mënta ñàkk faw nga xam ni ñuy yore dëkk mën ko administrer mhm. faw nga am ay valeurs yu ne ci yow ba nga mën koo jox ni ñeneen faw nga xam aussi texte yi ak loi yi dox ci biir dëkk bi rawatina ci wàllu jigéen ñi waaw pour bu ëllëgee bu kaa amee nga mun ko àtte mais loolu boo deful ci centre formation boo génnew ci centre formation doo fa mën a delluwaat pour servir fa waaw kon loolu loolu ci rôle am yi la bokk waaw mu mel ni ci sa biir kàddu maa ngi dégg ngay répété barab bu bu bu uh, Cuppaan di ko répété lu bëree bari donc mu mel ni Cuppaan centre de formation la woon euh, te loolu day wane ni maanaam suñu mag ñi daan naan tàggat daawuñu xëy rek jox la cër mais dana la tàggat formé la ba pare laata mbir mi di ñëw ci yow muy la am solo mooy ay rôle yu bëri yoo xamante ni donc soxna yi doon nañu ko joué ci euh, ci ci ci royaume bi euh, muy di taxaw taxawaay lépp loo xamante si ni jafe-jafe jigéen ñi la ñoo ci daan taxaw mais aussi lépp loo xamante si tamit maanaam seen i intérêt la dañ ci daan taxaw mais li ci ëpp solo ñu ko daan def mooy daal leen yar muy lu am solo tey professeur boo ñu doon ñëwal ci rappel historique ci ñenn lingeer yi nga xam ni xëy na suñu borom dogal ñu marqué seen empreinte kan ak kan nga ñu ci mën a xam nga lingeer nag jigéen la d'accord waaye lépp lu nekk ci buur day nekk ci moom maanaam xam nga buur moom bu ma moo xam nga ne buur du doon bopp nen waaw tamit dafay am pouvoir mystique boo xam ne ñëpp dañ ko koy nangul ndax am na ay woote daal yu ñuy wootante seen biir ñoom jigéen ñi xamante nañ seen biir xam ne ne foofu moom ku mystikul dafa toog te ka koy diriger mooy Linguère kon yooyu tamit daf ci daf ci bokk waaye leneen li ci mat a leeral mooy xam nga dafa am maison royal mooy kër buur bi nomade fii buñ la falee ngay buur fa ngay dem dëkki dootoo ñibbi sa kër baay dootoo am kër nijaay fii ngay ñëw dëkk si ak foo mën a juddoo nag fii ngay ñëw dëkk bu dee Linguère buñ la xasee fal dootoo dem sa kër jëkkër dootoo dem sa kër baay dootoo dem fenn fële ngay dem dëkki boo fa xasee dugg nag dootoo fa génn waaw dootoo fa génn parce que boo dee fa lañ lay suul waaw foofu bu tamit boo fa demee ba tey même déegi dañ ko organiser foofu boo demee foofu am na partie boo xam ne ñi nga xam ne Linguère lañ jot nañ leen introniser dafa am fu ñu leen di denc bu ñu wàccee liggéey am na ñoo xamante ne nii prétendre nañ nekk Linguère waaye jotuñu caa àgg ñooñu bu ñu wàccee am na fu ñu leen di denc kon cimetière yi dafa xaj ñaar même boo demee ci góor ñi noonu la góoru Gelawaar bu faatoo ca jotul woon nekk buur joor mos lañ koy yóbbu fa lañ koy denc bu fekkente ne nag jot naa fa lu ba doon buur moom fu ko dee fekk fa lañ koy suul fu ko dee fekk laa wax. fu ko dee fekk bu demee xare ji bu yàlla dogalee ñu daan ko ci xare bi fam daanu fa la ñuy gasul bu dee ci biir kër gi la dafa def une mort naturelle dañuy randal lal bi suul ko waaw noonu lañ koy defee kon boo gisee li am ci góor ñi moo am ci jigéen ñi waaw noonu la demee. ci wàllu histoire ba tey euh, yan yan yan lingeer nga ñu mën tuddal seen tur. waaw lingeer bi nga xam ne moo fi bàyyeekoo nii nii nga xam ne mooy maam Daba Diène Adja Daba Diène nga xam ne moom moo mujj ci ci yaay yi laa ko mën a waxee quoi parce que doom yi ñoo de suñ tool nii parce que yi ñuy fal nii Seynabou Ndiaye doom la ci kooku waaw doom la ci ko moog buur bii fi nekk nii seen ñaari yaay yi ñoo bokk ndey ak baay waaw buur sin ñoo baay ak euh, Linguère Fat Linguère Seynabou Diène mii Linguère Seynabou Ndiaye waaw seen ñaari yaay yi ñoo toppante waaw waaye kooku Linguère la woon boo xam ne ku amoon engagement la. ci loo xamante ni boo ko waxee sax nit ñi danañ ci def point d'interrogation ndax koo xam ne jigéen la waaye li mu gën a bëgg mooy mbay dem ci àll ba bàyyi mu amoon na ay tool CMA fu ñuy wax CMA 3 nekk ci commune Boulel département bu Kaffrine région bu Kaffrine te tool yooyu borom këram maam far ba Diouf di doomu bu Bussine Coumba Ndoffène moo fa amoon ay tool di fa bay mu jël relais boobu continuer ko di ko def te mbay dañuy naa maanaam yëfi góor la mais nag Linguère faw nga am loo sute tuuti jigéen ñi moom da doon bay ba nii mu fi jógee da ko daan def loolu lu nu marqué la woon ci moom ba pare aussi buur bi fi nekk moo ko doon soutenir parce que yaay la woon ci moom bu paasee am na ku ñuy wax euh, Linguère Fat Diène Linguère Fat Diène mooy woy juru buur bi fi nekk te bu suñ ñoxo baay kooku tamit ngir bañ a dugg ci yenn yi moom ku yàlla mayoon pouvoir la waaw ku yàlla mayoon pouvoir la Euh, boo jógee foofu xëy na am na yeneen ñoo xamante ne nii marqué nañu histoire mooy Linguère Kumba Sanjaan Linguère ko am na benn guy gu nekkoon fii buntu Cupaan guy googu lañ tuddee woon baak Kumba Sanjaan mooy guy Kumba foofu la daan yendu waaw kooku nag moo jur waagaan moo waaw moo jur waagaan Kumba Sanjaan am na beneen Linguère boo xamante nii siiw na lool ñu ko wax Linguère ñi laa jógoy Linguère ñi laa jógoy moo jur ku ma Ndofeen fa mag waaw am na aussi beneen Linguère boo xamante ni nii doomam may na ko tur mooy Linguère Code Fall Diouf lingeer Code Fall Diouf moo jur Bour Sine San Mon Fay waaw kon Linguère yooyu histoire manu leen a fàtte waaw parce que dafa am ñu fi tombee jur fi ay kilifa yoo xamante ne nii nit ñi xam nañu leen euh, beneen précision bi ci mën a def mooy Linguère fi ñuy tànnee buur fa lañ koy tànnee parce que boo nekkul Gelwaar mënoo doon Linguère boo nekkul Gelwaar mënoo doon buur kii fal buur mooy fal Linguère kon égalité boobu daf ci am solo xam na ngay dégg jàngkat yu bees yi tubaab yi ay égalité de genre xeet yuy wax yooyu nga xamante ne ñun yooyu ñun bañ koy def ay boobu tubaab yi xamu ko waaw jël jigéen di ko jox cër muy jiite jox ko kàddu muy wax jël ay dogal di àtte boobu tubaab bi xamagu ko waaye nag ñàkk a xam sunu aada ak sunu cosaan moo tax ñu gëm la ñu ne jigéen ñi Afrique amuñu baat dañ leen di def ñi ak nii fekk loolu amul waaw mais ñi xam aada cosaan xam nañ ni loolu ñàkk xam la am na solo professeur waaye euh, ci sa biir kàddu yaa ngi wax lingeer ñu bari ci sama genre gi bu ñu déggee lingeer dañuy jàpp ni mooy soxna su buur est-ce que noonu la demee. déedéet noonu lingeer du soxna su buur euh, xëy na nag am na ay buur yu amoon ay soxna ay lingeer xëy loolu ñàkkul ci histoire teewlootuma ko fii ma toog nii mais yaakaar naa am na mais lingeer yi ci ëpp. tantay buur lay doon koo ko waxee ci wolof yu leer yaayam bu ndaw wala yaayam direct walla rakkam bu jigéen wala magam bu jigéen waaw rakk buur bu jigéen mooy doon lingeer wala magam bu jigéen mooy doon lingeer wala yaayam jur ko directement walla yaayam ci bokk ak yaayam ndey ak bàyyi wala rakku yaayam bu mu bokkal ndey mais pas baay xaar ma jox la exemple pour mu gën a leer ñoxo baay mii fi nekk kii ñuy nii sëram la parce que seen ñaari yaayee bokk ndey ak baay xam nga kon kooku du soxna boo jëlaatee Boursin ci boppam ki fi nekkoon Linguère moom bi mu fi nekkee biñ koy soog a fal yaayam la parce que moom yaayam a bokk ndey ak baay <laughs> yaa ngi dégg waaw noonu la demee waaw maanaam rakkam bu jigéen la wala magam bu jigéen wala tantam wala yaayam waaw waaw. merci professeur ci kàddu yi am solo muy. Euh, kàddu yoo xamante ni kàddu xam-xam la képp ku ko dégg xam ni ku sonn ci histoire la ku sonn ci xam-xam la Euh, yàlla na ko yàlla fay wax dëgg yàlla aussi euh, nekk koo xamante si tamit ku sawar di joxe xam-xam di ko partagé mais professeur sama dernière question muy euh, en tant que jàngalekat nga gëstu lu bari bari ci histoire mu doon lu neex ci yow nga koy nga ciy ñëw di ci jàngaat di ci jariñu te nga gis ni xëy na say rakk wala sa yenn mag ñi sax ci jamono ji ñu toll loolu réere nañ ko lu muy def ci yow ak ban conseil ngay jox ñi nga xam ni xëy na ñooy suñuy kilifa pour ñu indiwaat suñu histoire ak suñuy aada ak suñuy parce que li ñuy jëggaan lu baree baree bare ndekete bi ñu mi mi ngi ñu jege waaye nag li olof naan lu jege bët fattu ko lan ngay joxe conseil comme ci loolu. waa xam nga nit ki bu fekkee ne da nga fee bàyyi sa bopp di copier keneen du yàgg ba nga nekk kooka waaw du yàgg ba nga nekk kooka kookee tamit la muy jëfandikoo boo ko dee jëfandikoo du yàgg ba nga suur waaw parce que bokku leen bokku leen moo tax moo tax da ngay gis ñoo xamante ne nii ñàkk xam a tax ñuy roy loo xam ne waruñu koo roy. ñàkk xam a tax ñuy dugg ci yoo xam ne du seen cër waaw ndax xam nga boo nekkee ci réew mu mel ni Sénégal ak ni mu amee ay valeur nga dem ba di fi dégg yenn yi da ngay xam ne nit ñi jàng nañ waaye jànguñu seen bopp xam nga jàng école ak jàng sa bopp daa bokkut boo jàngee école di nga am xam-xam ban xam-xam ngay am xam-xam bu lay permettre nga mën a liggéey pour am dara wala nga mën a xam waaye nag xam-xam bi lay jox valeur bi lay valoriser. ba nga gëm sa bopp xam sa bopp xam ci li nga war a dugg ak li nga warut a dugg boobu xam-xam moom kenn du ko jàng école en tout cas école Sénégal moom jàngalewul loolu waaw yooyu moom dangay dem ci pinc ci laaj say maam sonn ci gistu sa bopp yaay kan ci nga koy xamee ci nga koy amee. am na ñoo xam exemple bi ma lay jox pour mu gën a leer mooy am na ñoo xamante ni tey mënuñoo ñàkk ba nga xam ko ci ñoom waaw mënuñoo ñàkk ba xam ko ci ñoom am na ñoo xamante ni mënuñoo am. lu alal ji bari bari bari bari ba nga xam ko ci ñoom mënta nekk waaw ñu nag ñooy ñi xam seen bopp waaw ñoo ñooy ñi xam seen bopp ñi xam seen cër nag mooy ñi nga xamante ne ni tey lu ñu jàng jàng jàng jàng jàng duñ utiliser seenum njàng pour nax ñeneen ñooñu ñoo xam seen cër yow Bamba économiste nga diplôme yi nga am ci économie. moo tax ñu dénk la benn projet wala ñu dénk la benn programme wala ñu jox la benn direction parce que jàng nga am nga xam-xam li war a dem ci askan wi nga jël ko def ko sa poche jàng nga am nga xam waaye amoo valeur yooyu nag moo tax ma ne la jàng moom dafa am solo mi am na solo waaye bële nag dafay mën a tax nga mën a siggi waaw ndax am na ñoo xam kenn du leen reproché ne amuñu diplôme waaye chaque jour nga dégg ñu jiñ leen dara. mais dafa mel ni ci valeur yooyu sax maanaam fii ci Sine da nga ko ciy fekk euh, ba ci diggante maanaam sant ñi sant Touré ak ñi sant Ndiaye jaxasoo boobu dafa mel ni valeur moom moo indi. waaw loolu valeur la parce que xam nga ñaari famille yu bokku ñu sant bu ñu demee ba boole leen ba ñu mën a doon benn ba am yu mel ne règlement yu ñu fi teg yoo xamante ni kenn ci ñoom ñemewu ko jéggi loolu valeur la parce que Ndiaye Amakodou ak Bisik Touré ñaari ñii bokkuñu sant waaye ñoo bokk bàyyi. kenn ci ñoom bu bàyyee ñaari soxna kenn ki ku sant Njaay lañ koy jox moom mi sant Touré bu fi bàyyee ñaari soxna kenn ki ku sant Njaay lañ koy jox ki sant Njaay bu fi bàyyee ñaari soxna kenn ku sant Touré lañ koy jox loolu defe naa li nga koy wër gis ko ci Sénégal amu defe naa bëriwul defe naa bariwul te loolu am na fi waaw am na fii ci réew mi ñoo xamante ne nii noonu lañ demee waaw lépp ngir sàmm ay valeur parce que ay allie lañ Ah, ay alliés lañ ci lu neex ak ci lu naqari ah, parce que ñoom bi ñu gàddaayee julli mandax ñëw fii ci réew mi dañu fa am situation buñ nekkoon waaye dañoo ànd ak seen ngor ñoom ñaar mosuñoo teqale ko jaar ci lu ne ba jot ci nguur gi biñ jotee ci nguur gi nag relation boobu daa continuer ñu di ko sàmm ba fii nga toog nii ba fi ma toog nii boo duggee fii léegi ci biir Linguère Seynabou njaay mii nga xam ne moom la ñu war a introniser waxtaan wi ñaa ko jiite parce que ture moo ko jiite waaw te mi ngi ci seen biir waaw. Euh, jërëjëf professeur mu ay kàddu yu am solo kon mbokk yi nga xam ne yéen ñuy topp incha allah dañuy fa yéene ànd ak yéen dem ba Cuppaan ñu xool lañ moo fa nekk ak aussi maanaam naka lañuy ñuy fale Linguère mbokk yi ngeen taaxirlu ñu ànd ngir àgg Cuppaan.